diine yi nekk fii yëpp Sénégal ñu si bëri ñu ngi ngànk ay daara yu bëri ci ville religieuse yi aussi mel ni Touba Thiawane Ndiassane Medina na et cetera fu si nekk aussi am nga ay daara yu bëree bëree bëri ngànk ko c'est la première fois au Sénégal ngay gis parti politique boo xamante ne dafa proposer benn institution boo xamante ne sëriñ si dañ fay tase seen ay ndaw dañ fay tase pour waxtaanee. loo xamante ne day soxal askan bi ci biir loolu aussi dañuy waxtaanee la nga xamante ne moo soxal daara yeeg yooyu si yoo xamante ne ñoom dañ ci yëngu maanaam tey duñ fi bàyyati benn homme politique muy dem di jël ay en mallette di ko jox diw di ko jox diw di dugg kër sëriñ si di ko tas ak di jaxase gars yi di leen weer ak et mais créer benn entité boo xamante ne sëriñ si dañ fay yebal seen i ndaw ñu mën a joxe seen ay avis di wax ci question yi nga xamante day intéressé Sénégal gi yëpp te biir question yooyu noonu question daara yi ci lay bokk ak naka lañ leen di dimbalee te loolu dañ koy def si budget national wax ni ren Touba incha allah dinañ ko votel x nombre de milliards lañ koy jox Ndiassane li ngeen fay def Tivaouane li ngeen fay def li def Medina bay li def feneen loolu Pastef moo nekk premier parti politique boo xamante ne moo ko affaire aussi dafa am ci wàllu daara yi daara yi importance extraordinaire la am parce que man dama exploité ay rapports UNICEF ñu ciy wax ni xale yu ndaw yi nga gis ñi xamante ne amaguñu cinq ans wala cinq ans et quelque la ñu am egguñu ay six ans ak yooyu soixante dix pour cent yi amuñu accès au préscolaire mais maanaam école maanaam classe ba nga war a dugg ay jardin d'enfants ak yooyu noonu xale yu bëri quatre vingt pour cent yi amuñu ci accès te loolu dafa laaj loolu préparation la boo xamante ne mooy tax boo duggee école doo am yenn problème yi te du ñëpp ñu am possibilité dugg école bi Sénégal école nekkul lu obligatoire te du ñëpp la seen loxo jot ginnaaw donc daara yi importance bu extraordinaire la am parce que mooy ñëw di compenser manquement boobu noonu am ñi xamante ne amuñu moyen dugal seen doom pré euh, préscolaire ñu seen doom yi ñu ngi daara man mii di wax ak yow yàlla dimbali na ma ñetti doom laa am mais ñaari yi internat lañ nekk la moo tax ñu nekk internat parce que man maa décidé dañoo war a wàcce kaamil ba pare soo ko jàng école français sama taaw Mouhamadul Moustapha la tudd mi ngi daara. que stop Ibrahim la tudd mi ngi daara amul kenn ku si commencé gum jàng français moo lay wan ni non seulement daara yi système de compense par rapport ak système classique bi ñu xam bu tubaab bii nii waaye aussi intellectuels yi ñu ngi gën a conscient que ni seen doom yi suñu bëggee ñu baax suñu bëggee ñu jub ah ñu si bëri seen doom yi ñu ngi fexe ñu dem daara wala ñu ngi fexe ñuy moo xoolee alxuraan lu pare wala ñuy fexe leen yaree si yeneen yarin yoo xamante ne du nekk du sax du nekk rek ni da ngay jël yaru tubaab bi di ko jox donc daara yi dafa am importance bu capital bi Sénégal programme yu bëri doon na fexe jël ko en mais ñun en tout cas créé nañ benn entité boo xamante ne dañ ko fay waxtaanee di ko saytu dafa dafay investissement yoo xamante ne incha allah ay ndimbal yoo xamante ne sëriñ si nañ mën a jàpp gën a développé seen daara yi donc ñun parti Pastef daal nekk na loo xamante ne côté boobu moom macha allah dina gën a dëgëral taxawaay daara yi parce que fi am nii loo xamante ne la du du yoon daara boo xamante ne dimbali woo ko aidé woo ko sëriñ daara boo xamante ne aidé woo ko jàppale woo ko ci limuy muy dépense xëy benn jour rek tëj ko xëy benn jour rek xañ nañu jàng teguñu ko si dëgg teguñu ko si yoon donc loo xamante ne la ñun mënuñu ci ànd tey mënuñu ci ànd ëllëg te Pastef proposé na instance boo xamante ne bu jàppale pour jàppale la sëriñ si la te sëriñ si leen lañu am mooy daara kese la ñu am alxuraan ak sunna bi kese la ñu am bu nekkee wàllu catholique aussi ñoom nekk ñu ñoo xamante ne c'est gênant mais instance boobu tam da ça veut dire ne ki la dimbali nag di la jàppale pour doole la jox la ay moyens yoo xam ne dañ koy inscrit si budget bi mu nekk lu war kooku nekk ki nga xamante ne mën na la indil ëllëg ay jafe-jafe sa liggéey